gars yi présentation goney Sénégal yi nga xam ne daanaka ña nga fële ak taxawaay bi ñu am ak classement yi ñu war a yebbi loolee mébatum vidéo yi la bu ngeen nu toppee ñancoo international moom it mi ngi ci biir Pape Matar Sarr Pépito gars yi def leen seeni abonnement lépp lu ñu dugal ngeen mën koo cëppati bu leen jaaxle yéen a ngi ci télévision bi nga xam ni lépp lu la jox ci information faye ko bor ñancoo ngoog international sama waa ji seen waa ji ngeen gis ko noonu taxawaayam ci tàggatu gi nga xam ni ñaareelu wërngël la démb toj na foofe expérience bi nga xam ne fi mu toll nii gars yi bu ngeen ko xamee bu ngeen ko xamul bokk na ci màggeti équipe bi tey bokk na ci li nga xam ni mooy jënu digg yi nga xam ni moo gekk lële di équipe nationale bu iso Izo la Sarr ngeen gis ko moom it ci tàggatu gi am na laajte wu mu yaatal foofe nga xam ni moo nekk lance di découpe kii di Mendy ngeen gis ko Nampalys ak ñaari gardien yi nga xam ne mooy Seny Dieng ak ki nga xam ni daanaka mooy Boris euh, Diaw. ñoom ñaar am na solo bu baax a baax Koulibaly monsieur le capitaine ministre de la défense moom it ngeen gis ko moom it ci taxawaayam ci tàggatu gi teewe woon na ko Papito Pam Matar Sarr gone Cees gi moom it digg milieu terrain bi léegi am na place ca fële te Tottenham Tottenham am na place am ci équipe nationale bu Sénégal bu lépp dee tolloo Idrissa Gana Gueye gone ak Medina gi moom it taxawaayam gaa yaa ngi wax ni ak màgget la ba léegi mi ngi ci plan ki nga xam ni mooy resté maanub Sénégal bi di Alioune Cissé gone gu gees Lamine Camara di gone goo xam ne tamit daanaka kuy xelu la ngir mën a topp ci ay magam ngir mën a am xam-xam sàkku xam-xam moom lañ ko yóbboo fële ca lance xam-xam boobee na ko am uh, bu baax a baax ñaanco international ngeen gis ko noonu sama waa ji ba tey ci image yi dafa mel ni photographe bi da koo bëgg lool moom international sénégalais bi Habib Diallo wala Abdoulahat uh, Diallo wala ki nga xam ne daanaka nag mooy Ismaïla Sakop sotti seeg def si la yilimaani attaquant yi moo ngi noonu moom it na muy def bal ba am na solo bu baax a baax gaa yi ñu leen di jox daje ci yeneen information tey coppati la woon ndànk-ndànk rek ci entraînement bi ci baneen façon baneen anime